pour récuser ki nga xamante ni moom moo yoroon dossier euh, Ousmane Sonko au tribunal de Ziguinchor muy le juge Sabassi Faye ah finalement au dernier moment ñu retiré ko mais jàpp naa ni euh, retrait boobu pratiquement mooy li nga xamante ne dañ ko war def parce que dans tous les cas dans tous les cas suñ demoon ba ca cëppaandaw gi également ci rejet rek lay mujjee li ko waral moo Euh, tey jii bu fekkee da nga xool les dispositions du code de procédure civile parce que li nga xamante ne moo xewoon euh, Ziguinchor euh, c'était en matière civile et non pas en matière pénale mm-hmm. su nekkee en matière pénale récusation article six cent cinquante et suivant du code de procédure pénale moom moo prévoir mais comme fii en matière civile lañu woon la woon c'est l'article deux cent vingt-trois bu code de procédure civile moom moo prévoir mais ba nga ko prévoir da cee teg ay condition dafa wax nan la mën a recuser benn juge. naam juge mën nga ko recuser su fekkee ne da nga jàpp ne juge bi dafa nekk nga xamante ne dafa apparenté ak benn parti wala dafa am ay lien d'alliance ak benn parti wala yen ñaar da ngeen mosoon am problème ba ngeen dem ci justice bu boobaa mën nga ko recuser parce que di nga jàpp ne du impartial du mën a joxe décision bu nga xamante ne daf koy jox si akulaay taxalaam. loolu la texte boobu prévoir muy l'article deux cent vingt trois mais loolu texte boobu la mu wax mooy bu fekkee ni juge bi ak benn partie ci procès ka nga xamante ne moo nekkoon partie au procès Ousmane Sonko la woon su fekkoon ni Sabassi dafa amoon lien de parenté wala lien d'alliance ak euh, Ousmane Sonko bu boobaa di ko mën directement. Mhm. su fekkoon ni dafa amoon lien de parenté wala lien d'alliance ak jabaru Ousmane Sonko. Mhm. bu boobaa di nga ko mën a récuser loolu la texte ba prévoir mais fii condition yooyu nga xamante ne dañ ko tëral bokkul ak li nga xamante ne ñoom lañ invoqué woon pour récuser parce que ñoom li ñu wax dañ ne kenn ku nga xamante ne dafa nekk ci parti Ousmane Sonko mhm. dafa am lien de parenté ak juge ba loolu nag bokkul ci li nga xamante ne moom la article deux cent vingt trois daal di euh, prévoir mhm. ba ca topp mooy boo demee article deux cent vingt six bu code de procédure civile toujours daf ne boo demee ba nga xamante ne yaa ngi def da nga koy def avant procès bi commencé mm-hmm. récusation juge boo koy def da koy def avant procès bi commencé mais pas mënuloo bàyyi ba procès bi commencé bay déroulé wu ba nekk ci biir procès ba mm-hmm. ngay def récusation bu boobaa dafay nekk lu nga xamante ne maanaam c'est irrecevable donc ce qui fait que boo jëlee ñaar yooyu yëpp muy article deux cent vingt trois ak article deux cent vingt six bu code de procédure civile day wane ñoom même bu ñu retiré wu woon bu demee ba ca cappaandaw ga dañ dañu dañu neenal li nga xamante moom la ñu demandé mm. et je pense que ils ont préféré ñoom seen bopp pour éviter que euh, ñu leen di mm. débouté mm-hmm. ñu retiré ko en cours de route ce qui fait que voilà mooy conséquence bi mooy juge ba la nga xamante ne daf ko décidé woon mm-hmm. que affaire Ousmane Sonko ñëw ne il faut que ñu réinscrire sur sur les listes